beneen bi ci topp mooy Ousmane Sonko ñu ne kat de biiram da doon metti wala kat na mu doon noyyee parce que lii ak lee parce que lacrymogène ak lu mën a xew ci Ousmane Sonko xam nga loolu lu tax ñu ciy tiit mooy en mille 2004 bi ni jàpp Idrissa Seck Idrissa Seck dañ ko jàpp mu taxaw mu ne maa ngi dem wuy ji waaye feebaruma jabetuma canceruma awma tension lu tax Idrissa Seck fii ku lu jàpp ngay dugg kaso rek baat boobu ngay wax kon dañuy njort ni ñoom buñ tegee ci loxo loxoy seeni noon parce que fii adversité amatu fi wujje léegi gars yi ay noon lañu mën na leen a def loo xam ne mën nañ fa jóge feebar wala ñu am fa feebar boo xam ne du wér ba faw loolu nag moo tax ñoom ñiy tey ñaari yoon a ngi Ousmane Sonko di tegu ci loxoy takk der bi mu duggee ci tunel bi ñu gazé ko ak bu démb bi ak li mu ci jële ak maître Ciré Clédor Ly ban ne dàq nañu àtte bi puus nañ ko Ousmane Sonko ñu pare ñu ni ko yóbbu nañ ko ci kër docteur bi ñu ko yóbbee ci kër docteur ñu ne yaramam daa sutante mais loolu lu jër a jàngat la lu jër a bàyyi xel la parce que du guleet fii ci réew du Sénégal li ñu def Ousmane Sonko démb ñu def ko ab nit koo xam ne dañ koy àtte ci wàllu yoon parce que nguur Sénégal man du nguurug Macky Sall gi lépp lu leen jiiñ wala ñu tuumaal leen ko man duma leen ko weddi Hissène Habré ay exemple laa leen di jox dafa am lu toll ci juróom ñaar fukki at wala juróom-ñett fukki at soixante-dix ans quatre-vingts jëm kaw màgget amul kàttan amul doole Hissène Habré gis ngeen na mu ñëw woon ca tribunal bu gaa yi yoree photo na nan ma ko génneel mooy bi ñu jëlee Hissène Habré teg ko ci ab jàgg yanu ko di ko forcer ci góor goo xam ne am na juróom-ñett fukki at loolu fi la ñu fekk kon ñi mën a def loolu isen Habré mën a def leneen fii la ñu gis Ibrahima abu Khalil ñu naan ko bii Bibo bii Bibo Bourgi ay perfusion lan ko jël teg ko teg ko ci jaag jaag laala la wax jaag jaag bi ñuy teg dee indi ko ci tribunal bi nga xam ne nguur gi ñooy ñàkk yërmande Karim Wade waxoon nañ fi ni tànkam dafa damm Assane Diouf dund na loolu ci prison. tànkam dem na keneen ak keneen ba ci imam Alioune Badara Ndaw am na ñu naan la ko dal prison la ko dale te moom toog na wal fajri wax ko yu mel noonu nag moo tax du ñu wóolu jël ab opposant di ko bàyyi ci loxo ñenn ñi benn seen i nekk egg na ci jabaru Karim Wade bi ñuy àttee mbiri traque des bien mal acquis mais jabaru Karim faatu ay takkaayu ooram ñu jël ko ci tribunal bi ak lu Karim Wade mën a def ci àddina soxnaam bu faatoo soxnaam yoonam nekkul ci li Karim Wade def mais ay takkaayu jabaru Karim Wade mi ngi won ca tribunal nguur gu mën loolu mën na leneen ci Ousmane Sonko te Ousmane Sonko moo gën a dangereux Ibrahima Abou Khalil mii ñuy wane di Bourgi Ousmane Sonko moo gënoon a dangereux seen Habré moo gën a dangereux kii di euh, Karim Wade kon usman ni ni bañee kii di Ousmane Sonko bañewuñ ko ñële Ousmane Sonko lañ gën a ragal. léegi nag coow li mooy jël Ousmane Sonko di ko bàyyi ci loxoy ay noonam ah gars yi Ousmane yi war nañ war nañ xoolaat de ñaari yoon a ngi mii am amoon na le 16 amaat na démb jël Ousmane Sonko rek yan yóbbu daa xaw a yomb loolu gars yi nag nee nañ Ousmane Sonko day victimisé wu pour politiquement nit ñi yërëm ko ah. man doyuma de le fait que à chaque fois gars yi na ko coppet jël rek dugal ci ab daamar dém maa ngi déglu benn tappalekat boo xam ne ci ñoom la bokk naan Ousmane Sonko waru woon ñibbi këram mooy bay tappet yooyu nekk concert boo yooyu xam ne lu mën a xew ci réew mi ñu naan noo diw du génn diw du génn te bu diw génnee ñoom kenn du leen gis xam na ñooñ ñooy dugal président Macky Sall ci guta noo diw du génn diw bu génnee nan ko teg lii ñun waa COJER Medina Bamba Fall jug nii kërëb kërëb mais li lay wax ne ay tapper lañu bu réew mi yëngoo même bu journaliste yi jëlee téléphone di leen woo pour enregistrer leen ci rajo yi wala télé yi duñ wuy parce dañuy bañ ku leen identifier kon ñooñu di dugal président Macky Sall ci lii lii day dooleel Ousmane Sonko mais da koy may doole mais Ousmane Sonko aussi tey na maytu na maytu tamit parce que tamit coppeel rek dugal ci ab oto fourgonnette ñiy pompe di gaze ki dem bay gazé hôpital ku dem ba un euh, tribunal dem ba di ko gazé di gazé ab tribunal nit ñi nekk ak condition fa nekkee nga mën fa taal gaz nguur goo xam ne tey jii ñi ngi wax ci xibaar ne am na ay nervi yu leen di liggéeyal ñu gis ko ci ay video ca Médina ñu yor ay jaasi takki der yi war leen a arrêté arrêté wul leen nguur googu képp ku leen wóolu wala ngay jël sa bopp di leen ko dénk juum nga.